xaarandi euh, foofee mu mel ne nag ay simili rek moom moo des ngir mu yegg si amal li nga xam ni moo di votam waaw euh, mi ngi yegg si léegi ak euh, soxnaam mari Khone Faye la première dame tout à l'heure maa ngi leen doon annoncé arrivée président de la république foofu ci centre de vote am mais sorewul fii ñu ngi ci centre de vote Codé Ndiaye fii la première dame mari Khone Faye di voté donc format bi mooy moom lay àndal mu voté d' abord avant que muy dem euh, euh, centre de vote Ndiaye Ndiaye euh, pour voter donc léegi léegi rek yegg si nañu yegg si nañu donc di ngeen leen mën a découvrir tout à l'heure mu war a voter moom première dame ci bureau numéro 3 donc bu ci noppee nag si lay ànd ak président de la république fële ca Ndiaye ngir rek ñu voter Euh, moom mu voté président de la de la république ànd ak première dame Marie Khone Faye euh, fii ci bureau numéro 3 euh, kon ñu ànd ak yéen rek ci biir ñu jël lii nga xamante ni mooy vote bu première dame Marie Khone Faye fii ci bureau bi je rappelle ñu ngi ci centre côte Codé Ndiaye fii ci Ndiaga Niaw Euh, fii nga xam ni kon euh, fii le président de la république euh, di voté ak soxnaam mi ngi noonu kon ci image yi moom première dame Marie Khone Faye di joxe kartam kon daf procédure bi nga xam ni moom mooy procédure bu normal bi waaw xam nga ni dañ koy woo après identifier ko mu sogo donc euh, passer à l'acte donc jël na enveloppe bi mi ngi dem choisir euh, les bulletins en principe 41 euh, la mais on a le choix cinq bulletins après nga dem voté ji actuellement donc la première dame est en train de passer à l'acte elle fait le choix donc pour ensuite se diriger vers l'isoloir kon euh, ñu ngi koy euh, gis noonu en direct léegi rek kon mu egg ci isoloir bi jël bulletin bi dugal ci enveloppe bi comme ni ñu koy defee après ñëw ci urne bi voilà mi ngi noonu mi ngi ci isoloir bi kon di champ di di choisir bulletin bi dugal ko ci euh, enveloppe bi bu ci noppee nag si lay génn ñëw dugal ko ci urne bi ñu eggale procédure bi euh, comme ni ngeen ko xamee euh, suñ ci noppee nag euh, ma fàttali ko dañuy dem foofu ca Njaanjaay beneen centre de vote foofu la njiitu réew mi président de la République Bassirou Diomaye fay di defee am jamono yi mi ngi taxaw di ko xaar kon di xaar soxna si ngir rek bu pare ñu yegg foofa ca Njaanjaay voilà voilà première dame euh, génn na mi ngi dem ci isolo euh, ci urne bi waaw voilà c'est fait donc euh, dugal na bulletin bi ci urne bi dafay signe après def enveloppe bi def autant pour moi, voilà, encre indélébile. Voilà. Voilà, donc euh, mi ngi noonu première dame madame Marie Khone Faye euh, na ba pare léegi kon euh, ñu retrouve on se retrouve à Ndiandiaye Ndiaye pour euh, cette fois prendre euh, le vote du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. À tout à l'heure. C'est dans quelques petites minutes. D'accord. jërëjëf euh, Oumar Gningue mu nekkoon nag première dame Marie Khone Faye moom mi nga xam ne vote na ci bureau numéro 3 ci centre Codé Ndiaye nekk sa Ndiaganiao ci ay simili nag dinañ fa delluwaat ngir dégtal leen votuk njitu réew mi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye foofee ca Ndiandiaye waaw amint rafet na kon niñ ko waxee woon rek toujours euh, privilégier le terrain mm-hmm. euh, dafay euh, am solo mm-hmm. ba tax na comme niñ leen koy waxee sànq bu léegi à temps réel mm-hmm. Mamadou kon fi nekk nii